waaw li may njëkk a def mooy remercier ndaw yi nga xam ni tey ñoo lënkaloo ci jeune pour mode fast track de Thiès jël initiative bu mel nii parce que lii quand même lu rafet la loo xam ne mag ñoo ko woon a xalaat mais ndaw nag su ñu jëlee ay initiative boole ci ay mag suñu xel mun na dal ne ndaw yi léegi yeewu nañu pour yëkkati Thiès ànd ak seeni i leader ñu fexe ba Thiès profité ci PSE parce que PSE 1 bi du ma ne amuñu ci dara am nañ ci gaa mais liñ ci waxoon am mënoon na ëpp loolu. PSD bi nag war nañ ci gën a takku liggéey ci ba nga xam ne li ñu ci war a am yëpp dinañ ko ci am ah loolu nag dafa laaj ne axe yi ñu développé lépp mooy l' entrepreneuriat mon ami Abdoulaye Dieye wax na ci euh, ak ñeneen ñeneen numérique beeg création yi am yëpp ñu tënk ko ba nga xam ne li ñu fi wax yëpp nekk une feuille de route boo xam ne jeunes yi dañ ci mën a tegu bëgg seen dëkk di ñëwaat ci seen dëkk di ñaan mag ñi nga xam ni tekki nañ ci Thiès jox leen lépp ñu dellu si waat Thiès delloo Thiès jëkkalam di ñaan président de la république aussi mu xalaat Thiès parce que tey euh, man su ma xoolee Thiès damay jàpp ni Thiès delloo wuñ ko lépp li ñu ko waroon delloo parce mhm. que suñu demee ba dëkk bu toll ni Thiès nekk la deuxième ville économique la deuxième ville en termes de population mhm. il a pratiquement pas de directeurs généraux qui habitent Thiès mhm. il y a un seul ministre dans ni baaxul ci delloo njëkkal le président de la république mais ñi ngi ñaan Thiès lënkaloo ak le président ndax ñu gën a mën a delloo ci euh, président delloo dukkal waa Thiès jox leen taxawaay bi ñu war a mus bi ñu war a am ci Thiès parce que ci Sénégal parce que cees nag lu dëkk boo xam ne dañ koy lënkaleeg yeneen dëkk su ba yenn dëkk yi. Mhm. nga xam ne en terme de population en terme de positionnement en terme d'élite matuñu sax un quart de notre ville l'essentiel de de de de l'échiquier qui compose le Sénégal est drainé par la je pense que ñun war nañ toog xoolaat suñu bopp euh, toogaat gëstuwaat liggéey ko. loolu ak euh, waa Thiès ñoo ko war a def local yi di ñëw ñu wane suñu bopp nangu suñuy mairie jox ko mouvance présidentielle ndax ñu mën a ànd ak le président mu liggéey delloowaat ñu kër waa Thiès comme nu ñu mën a toll. c'est Mor euh, Ndiaye Mbaye directeur de cabinet du ministre de l'économie numérique et des télécommunications. da ngeen jëf dañu daje fii tey ci benn initiative boo xam ni euh, xale yi ay ndaw yu Thiès. ci partie bi ak lu bokk ci mouvement affilié yi ñoom ñoo ko initié pour dajale ay ñoo xam ni seen xam-xam màcc na ci ay fànn yoo xam ni ñoom ñoo ko tànnal seen bopp muy juróom-benni xeeti euh, ay domaine yoo xam ni dañu bëggoon kenn ku nekk ci ñun jël ci benn ñëw am lu mu ci wecconte ak ñoom am lu mu ci présenté pour xamle lan mooy taxawaayu gouvernement bi ci question yooyu bu nit ñi laajtee seeni yi nga xam ne mooy seen i préoccupation ñu man cee tontu loolu kon moom moo ñu fi dajale boobu ba léegi maa ngi wax sànq ci tubaab ni euh, boo gisee ni fi nit ñi dajee mbooloo mi fi daje ak qualité wu mbooloo mi fi daje ak surtout qualité wu intervention yi parce que ñuy def un peu focus di gën a euh, wax ci ñi doon présenter mais ñi nga xam nit ñoo toog di diglu te bi ñu paree ñoo doon poser ay questions ak di indi ay contributions boo xoolee aussi qualité boobu nga xam ni thèmes yi nga xam ni yëpp moom moo ñu fi dajale ci suba ba léegi lu mat juróom-benni waxtu lu lu important la loo xam ne lu ñor nit ñi la ndax ay wàllu xam-xam la yu jëm ci xam-xam yu xarala yi ay lu jëm ci wàllu njàng mi ak formation professionnelle nan la ci état bi taxawee ak lu jëm ci développement local maanaam li nga xam ne mooy li suqali gox yi ba ñu mën a développer ak yu mel noonu nga xam ne sunu camarades yi taxaw ni yëpp ci sama ginnaaw def nañ ci ay intervention yu am solo ay présentation yu am solo génne ci xam-xam bu wóor génne ci aussi yi nga xam ni mooy matuwaay yi nga xam ni gouvernement bi jël na ko ci ci bi mu toogee ak léegi defe naa ni lu am solo la ñëpp constaté waaw li ma ci gis-gis gis-gis moo ci am mooy bi ci am mooy question la boo xam ni bu délicate ndax euh, xam naa lu nit néew néew xam-xam dégg nga ñuy wax malédiction du pétrole bari na réew yoo xam ne ni génn na fa euh, au lieu mu jur fa njariñ safaan la fa jur ba mu bañ ko tàmbalee wax fii ci Sénégal ba léegi ni am na lu fi feeñ ñi ngi artu nit ñi ni leen nañu tey ci li ñuy wax nañu def attention parce que ay question la yoo nga xam ni ñi ci nga xam ñi ngi ci yëngu jaral na leen loo nga xam ne ni bari na fu mu feeñ ci àdduna bi surtout ci réew yi nga xam ne moo mel ni suñu réew yi nga xam ne réew yu néew doole lañu la mu mujje mooy tas réew yi dem na sax ba ci réew yu ëpp yooyu mun naa wax Venezuela ku ne xam na position bi mu amoon ci pétrole aujourd'hui réew la moo xam ne tas na te pétrole moo ko tas te yu mel nii ñoo ko indi c'est des questions yoo nga xam ne nit ñi kenn ku ciy wax la ngay wax war naa doon loo xam ne loo mën a teg baaraam la loo xam ne ni bu doon lu ñuy war a nga mën koo waat ni lu wér la surtout bu fekkee ni safaan la li xew nag ci Sénégal mooy euh, yu mel ni bu jotee kenn ku nekk comme dëkk boo xam ni la dëkku liberté la dëkku démocratie la kenn ku ne da nga yëkkati wax ca lu la ne la ngay wax amaana man nga xam nga ca astëf amaana xamoo ca dara da ngaa njort wala da ngaa def ay taqale wala ay xalaat yoo xam ne sa xalaati bopp la bu wéeruwut fenn donc yooyu daal man li ma xam mooy lu ñu war a def attention la parce que coow li yëpp yëpp yëpp boo ko digloo néew na koo nga xam ne nii ci ñi ciy wax la muy wax da tegal baat tegal la baaraamam ci ab démonstration bu wóor ak firnde yu wóor ni lii muy wax lu wér. loolu moom wax jëm ci wax euh, yow nga nekkoon directeur euh, bu ma sañoon doo ma wax loo ci sujet kenn kenn. doo ma ci wax ci kenn ci ci ci ci ci ñi nga xam ne ñu ci wax dama la jox rek ab avis global ci ñi nga xam ne ñi ngi ci intervenir yëpp bu ñu personnaliser débat bi li may wax mu ngi jëm ci ñëpp ñi ciy wax kenn ku ci ne en tout cas ku war a ku ne ku war a jël say matuwaay nga ku war a jël say disposition la ba nga xam ni li ngay wax lu wóor lay doon te mu doon loo xam ne luy jariñ lay doon loolu lu important actuellement àgg na ci foo xam ne nii kilifa réew mi àdduna ci yoon àdduna ci laaj na leen kenn ku nekk la nga ca xam nga dem wax ko mais je pense que dinañ dem waxi ko li nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ci ay tuuma ay wax yoo nga xam ne mi ngi ciy jëm yoon dina ko saytu disposition ya nga xam ne war nañ koo jël dinañ ko jël yaakaar naa ni loolu mooy li ci ëpp solo waaw am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax ndax euh, comme ni ma ko waxee léegi rek euh, boo digloo intervention yi fi am tey ngay gis ni bari na loo nga xam ne nii nit ñaa ngi koy njort dañoo xamul réellement li nga xam ne mooy travail bi nga xam ne ñi ngi koy def ndar dafa xëy xëy sotti comme ni ñu koy waxee ab liggéey surtout loo nga xam ne lu jëm ci réew la dafa laaj xam nga euh, lu bari ci intervention yi da ngay dégg ñu lay wax stratégie une stratégie day laaj temps pour ñu élaborer boo ko élaborer pare day laaj temps pour nga déployer am nañu njort bu wóor a wóor a wóor ni bu ñu àndee boolee suñuy doolee li ñu bëgg a réaliser dinañ koy def te loolu du loo xam ne rek njort bu ñu teg nii la bu rafet comme ça te teguñu ko fenn xakay ndax boo xoolee 2012 ak léegi bu fekkee ne def nañu li ñuy tuddee une situation de référence 2012 secteur par secteur fenn fu ne nga xool ni fii la secteur bi tolloo ca waxtu woowu. actu ba fii ñu toll nii nga nat lii nga xam ni xew na fi ci diggante bi li ñu tuddee ay pas de géant maa nga maanaam jéego yu mag a mag a mag a mag def sañ ko ci secteur yi yu tax ñu war a mën a gëm ni domaine bu mu ci manti doon war nañoo mën a yokkaat jéego yooyu ba mu gën a gaaw donc fast track boobu ab réalité la lu ñu mën a réaliser. yaakaar nañ ko bu baax a baax comme j'ai dit am na ci yenn yoo xam ne commencé nañ ko abord en tout cas ci secteur bi nga xam ne moom laa doon intervenir comment defoon def naa benn. Euh, kii boo xam ni ci Thiès rek laay def pour wax projet yi nga xam ni commencé nañ ko ci secteur numérique yan projet moo ci am euh, moo ci am impact ci Thiès fépp lay am impact mais présenté nañ ko yeneen yi nga xam ni yëpp aussi ñu ngi ci yëngatu je pense que impact yu réel dina ci am yoo xam ne nii Thiès am na droit wu xaar ko Euh, du taxit nag ñun en tant que homme politique ñu def genre satisfecit déedéet li ñuy def du ñu ni mukk doy na on va se battre encore davantage pour que Thiès place bi mu war a occuper mu occuper tout à l'heure euh, notre euh, ami Gningue DG Gningue wax na ci position bi nga xam ne Thiès occupé na ko c'est une position centrale boo xam ne ab avantage géographique la bu ñu mën a permettre sur beaucoup de plans ñu ñu mën a ñu ñu ñu mën a devancer même toutes les autres localités du pays e je pense que ñi ma wër nii yëpp kenn ku ci nekk di nga xar sa tànk tubéy ci loolu amul lenn loo xam ni ci ci ci domaine bi nga xam ne relevé na ci say compétence yow di nga toog di ci am loo xam ak doylu goo xam ne da naan lii ñu def doy na wala déedéet déedéet parce que dañoo bëgg a émerger et dañoo bëgg jiitu ci émergence bi kon loolu loo xam ne la loo dinañ ci investir dinañ ci xeex ñun ñëpp xar suñu tànk tubéy